dikkati na ngir financé ay domaine yu sofantikoo ci réewum Sénégal Washington turbine yéen kaay naan man daal dinay débloqué ñaari téeméer ak juróom benn fukk ci milliards daal di koy jébbal état bu Sénégal yéen kaay bi dee média bi naan man investissement bu njëkk gannaaw bi nga xam ne nguur gu yees gi daal nay ñaabar ñaabari ni yéet nguur gi toog ci nguufaan ci fond yooyee ñu jagleel ko wàlluk énergie jagleel ko it wér gu yaram jagleel ko daal di renforcer secteur agro industriel waaye tam daal di ciy joyenti entreprise si ndaw yeeg yu digg doomi kaay naan kon waxtu woowu day nañ ci jooyanti kon ñi nga xam ne ñooy bay soble ba ca diwaanu podoor la ñuy fay ñi leen di jàppale cher na soble sa jarul amuñu ay chambre froide yoo xam ne manees na ca denc lépp loo xam ne bay nañ ko Dakar Times naan kon yemoog waxtu woo xam ne moom FMI def na rapport ci réewum Sénégal daal di sàkku moom léegi daar daar FMI ñu yokk la nga xam ne mooy courant ak carburant ci réew mi yéeni kaay bi naan man président Macky Sall lu toll ci juróom ñetti téeméer ci ay milliards doon na ko def ci subvention ci def ne ko ndànk-ndànk nañu tàmbali dindi subvention yooyee te di xam le ni njëkk yi moom mënees na ko yokku le te moo yéene kaay naan ko déet fi mu ne kay ay audit la ñu nekk nañ doon séddalee ndox mi dees na saytu na contrat yi nan lañ ko defee contrat yoo xam ne bokk na ci bu ak waa power dees na ko audité lu toll ci ñeenti téeméer juróom fukk ak juróom ñeenti ci ay milliards ñu patam patamee ko xaatim ko seen digg ak benn investisseur saoudien lii nag daal di am ay fan gannaaw bi président Macky Sall bàyyee Sénégal te contrat man lëndëm na la ca nekk ci biir contrat bi it lëndëm na faaw mu leer sénégalais yaa ko bëgg libération yéen kaay naan ko en tout cas jubal jubbanti la ñu woote fi mu ne na gouvernement Ousmane Sonko ma nga ca wax ga président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne woon képp kuy délinquant fiscal waaye tam di setal xaalis boo xam ne setul des na la niib teg la loxo loole ña nga ca ñu njëkk ña moom daal dinañ leen di jàpp fa yallaahu gérant bu FS Oil ak ex patron bu DG Oil division des investigations teg na leen loxo lopp juróom-ñeenti téeméer téeméeri million moom lañ leen di toppee état bi moo jël ab plainte jaarale ko ci direction générale bu impôt et domaine ñu daal di leen di toppee di lëndëmal daal ba fayuñu impôt yi am na ñeneen ñoo xam ne soo moytuwul dees na leen teg loxo ci mbir mi tribune yéene kaay mel ni ku naan maan jomaay fawul foluwul ña nga xam ne ñoo yor suñuy milliards saax-saaxee ko jëlee ko ci faju covid 19 bi su leen yeboo yéen it ngeen waaj de te xool nag mbàjj mu leen di sàng kaso ndax fa ngeen jëm milliards yi ngeen sàcc bayee boo ngeen génn ci as lëf di koy jébbal sëriñ su mën te ci boppam ma nga ca seen i tànk kulli ministre dib DG wala ab DAGE wala ab DAF wala chef de service wala comptable ma ne la képp koo xam ne lim nan la ci coow lii di junni milliards yi Covid 19 yi su yeboo lem say kaakate waajal sab kaso scandale bi nga xam ne daanaka bokk na ci gën a rëy ci réewum Sénégal mënuñoo toog te duñ ko saafara te nguuru jamaay nag mi ngi ci saafaraay scandale Le Quotidien Le Quotidien mel ni ku naan kon fawul wala moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ngir xeex ger ci réew mi OFNAC sàkku na ci Nafi Ngom Keïta mu daal di taxawal ab projet boo xam ne dees na ko réformer bu sa noppee nag ni yéet seesu njiital OFNAC ga toog ca laas naan kon waxtu woowu mbaadu temps de grâce ban leen mayoon dafa jeex les voyé ne naan kon tàmbali na nag jeex ci assemblée nationale ndax na ñaar ñi nga xam ne ñoo am doole ci réew mi ñoo tàmbalee xëccoo l'info naan man mën a jural it réew mi lu ne ñoom opposition bi di Benno Bokk Yaakaar am nañu doole nërmeel gouvernement Ousmane Sonko waaye tam Bassirou Diomaye Faye am sañ-sañu sayal assemblée nationale l'enquête naan kon a ña ngay xupp aji mbergaan kanute ci tribune yéen kaay naan leen ma ñëw rek lay tax ñuy def ab motion de censure ma ngay dépendre telu Ousmane Sonko di wax assemblée nationale l'enquête naan koon ab arme la wala yi da ngeen bëgg faagaagal seen bopp daal di jeex ci politique fayal laaxu mbaadu nag ak motion de censure bi yéen waa Benno Bokk Yaakaar da ngeen fas yéene gasal seen bopp ak bàmmeel te faatoogu leen bis bi le jour naan ñu ngi ci terrain bu bari miin gi fas yéene janoo ak bennoo ci assemblée nationale boobu janoo bu nar a neex opposition bi nag daal fas yéene tàmbali ab opposition am ci réew mi moom premier ministre war a jaagar jaagari ci assemblée nationale waaye nag amu fa ab majorité Ousmane Sonko ñu jël ab épée teg ci ndoddam mën a kupp bopp gouvernement am à tout moment lii nag nekk arme ak majorité parlementaire bi coow la nag moom moo di ndax taxaw dina dolli cere yokk ñeex dolli leen doole ba majorité ba gën a dëgër ñu mën faagaagal gouvernement Ousmane Sonko bi bii l'info naan kon en tout cas nañ bàyyi xel ci ne saa bu ñu ko bëggee faagaagal gouvernement Ousmane Sonko bi am mën nañu sayal assemblée nationale réew mi naan kon mi ngi fii la mbir yi féete moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye mooy président bu réew mu Sénégal koo xam ni nag ma ngay défendre intérêt Sénégal ba ca kanamu Union européenne ba sa nga jàkkaarloog Charles Michel président bu conseil européen yi naan kon suppi ku day am wala partenariat la ñu bëgg goo xam ne dañ koy daal di saytuwaat ñu Afrique nekk kay talal loxo ñu koy jébbal déedéet da ngeen di root ci Afrique faaw ngeen nangu Afrique root si ak lu mën a am ko soppi doxalin dafa am ci réewum Sénégal relation ak Europe ñu daal di koy xoolaat daal di koy yeesal Walf Quotidien mel ni ku naan attention de discours gi nga xam ne moom bopp dem ca gël guy moom la projet bi àndal waaye nag projet bi ma nga janoo ak dictat yoo xam ne ñooy indi koppari ci réewum senegal moom la ñuy imposer Demba Moussa Dembélé ci yéenekaay bi xam le ni politique yu institution yu Bretton Woods yi du soppeeku te du mës a soppeeku yéenekaay bi naan maan waxtu woowu fa ñu war a sóob ci loxo Sénégal jamono ji moo di enquête nag fi réew mi ak faatu bakkan yoo xam ni sakkan na am na yu bari yoo ni ba tey France daal di xiddeem leerul daal yéeni bi naan maan bu Fulbert Sambou leerul bu Didier Badji leerul bu François bu leerul lu toll ci juróom ñett fukk ci ay dossier yoo xam ne ay nit yu ñàkk seen bakkan lañu ñu rey leen ci anam wu ñaaw te salte tey jii mi ngi ñu daal te ci tiruwaar yi daal di nguufaan ci kaw tiroir yooyee yéeni kaay bi naan maan justice ci boppam naam a position ci mbir mi baaxul waaye faw ñu leeral dëgg-dëgg bakkan yooyee ci yan anam la daal di ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm